a waaw da ciy jàpp te bis bi jàpp na ko bu baax a baax a baax ñoo ngi koy sant di ko gërëm di ko jaajëfal di nuyu tamit waa DPG yi directeur Madické Cissé jàpp na ci bu baax baax di sant population bi yëpp di leen gërëm di wax liggéey bi lii rek la ne sama jori Abdoulaye am amna wote mais amul xare yakar na ni dëkk bi ñu fi woote patriotisme bari na torop mais tay bu ñu woote pourquoi pas ñu jëm tey itam dañ ko war di yaatal incha allah en tout cas ñu ngi rafetlu lii aussi cër la bu gouverneur wara def mais ñu gërëm aussi wa sénégal le directeur général euh, pap Demba bité mom aussi dafa participer ci bëss bi ñëw né comme ni président def lépp ñëpp la kon bu baaxee comme tey association CDD jóg yàgg a def lu mel nii ci dëkk bi te xaaru ci woon kenn kon tey bu fekkee président de la république dafa def benn lancement woote pour naka lañ mën a def pour seetal dëkk bi ndax dëkk mënul pour mu am wër gu yaram kaw maanaam mu am cet kon jàpp naa ne action citoyenne lii ngeen def lu rafet la di gërëm monsieur le maire li mu ñëw taxaw di leen appuyer parce que lii mooy cër bi nga xam ne moo ko war nit nag bu amee cër xam ko def dañ ko war a gërëm

loolu moy li nga xamne ne lañ ci bëggon sànni di leen gërëm di leen sant vraiment Ousmane yow mention spécial ko dem jàmm gën ngay xéer moy sa xeex kudi moy sa xeex bëccëg tu es un exemple parmi les jeunes té nak da ca kanam incha allah ngay xam jëriñ lu way def rek ci aduna sa bop sa ko defal kon nak ñu ngi lay gërëm di la sant sa taxaway rafet na monsieur le maire sa dooma ngoog ak ñi ñëpp nak leen ko gën leen a ndax li nga def amna ñu ko waroon a def té defuñ ko tay boko défé yoy ci mi vraiment des remerciements di la félicité di la ñaanal en tout cas merci beaucoup loolu rek lañ ci bëggoon a sant. monsieur le maire euh, Moussa. di am mbégte ci teewaay bi mais di am mbégte aussi ci le projet de ñu accompagner ci journée bi. mu suñu bam solo boo xam ni ci kilifa gi lañ ko kilifa gi lañ ko doon setal sa réew a ngi tàmbalee ci commune bi tàmbalee ci département région yi ba egg national kon tey bu ñu en tant que maire ànd la CDD ak kay njëkk ci wax dëgg léegi depuis que APEX aménagé les bassins et les canaux chaque année dañuy ànd ak ñoom ko yàlla def lu mu dogal maanaam te yàlla dogal na ma nekk maire mu leen wane ginnaaw waral ma sérieux ndax fu ñu taxaw maa ngi seen wet seen kanam seen ginnaaw ànd ak moom bokk bu liggéey dëkk ko léegi dëkk rek ñoo koy liggéey bu dëkk ñoo koy liggéey kenn du ñëw liggéeyal ñu kon nag ñëpp leen bokk booloo ak taxaw léegi coono réeru boromam lu waaye liggéey yàlla fay tey ñu waroon taxaw taxaw ñu de koñ baa ngi nii ñu waroon ñëw boo wàññee benn benn ñoo génn te fi mu ci jigéen ñëpp ñëpp waaye d'autres personnes yoo xam ne tey ñu bàyyi seen koñ parce que koñu Ousmane Diop de koñu Ablaye koñu keneen kon nag taxawaay war na ci ñëpp ñu génn tey di bale na ñëpp génn ànd ak ñoom la war kenn ku nekk yaa war a bale sa tuddika bu amul loolu nag ba at mi ñëw fees ñu génne nañ génn jàppale waaw góor na jàmbaar waaw ñu am sabat lay sax baax a baax si taxawaay gouvernance gis nañ ko nekk développement boo xam ne bàyyi woo xale loolu nekkoon booy dem nëbbutu bañ a woo Ousmane loolu nekkoon booy a woo Nar Sall la comme toi mais ñoo ma nekk gouvernance devant le gouverneur devant les tribunaux de répéter. Donc nous remercions tout le monde. Nous encore une fois à la CDD. Merci encore une fois. Merci. Merci. waaw c'est RAS RAS RAS baax na. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ki ci nekk xam na lu ñu dajale fii muy journée bi nga xam ne tey le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye moo ko woote muy journée de déploiement. yàlla dogal nag ñun collectif de développement de Diamaguène chaque année dañ koy def bu fekk si tey nag. ñu yoo am ci yokkute bu rëy service d'hygiène tey ñoom ñëpp macha allah ñëw fi ànd ceeg ñoom tout ce qui est désinfectant ñu def ko ci dëkk bi na loolu damay bàyyi kilifa gi muy le coordonnateur Abdoulaye Diagne ci indi ay leeral mais comme xam nañ ni daal population jàpp si Kambaaw jaawoon teg saaw ñoo ngi jël cat gee ngërëm li di ko teg ci commandant ñoom mu jàllale nañu ko ci service d'hygiène yëpp ñoom ñëpp ñëw nañ tey gis ngeen matériel bi ñu déployé yëpp indi ko première fii ñu door koo gis tey ci jàmm gën si Kamba ak Thiawane Kër Sao ñu ñëw ànd ak di sant di leen gërëm di leen jaajëfal a baax. salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di remercier ñi nga xam ñoom lañu bi nga xam ne mooy service juin bi le président de la république moo ko woote monsieur euh, Bassirou Diomaye Faye mu nekk bis bi nga xam ne bisu curage la ak nettoyage maanaam euh, propre la ñu woote tey ñëpp sénégalais yëpp dañu war a génn ñu defar dëkk bi parce que chaque année dañ ko def année bi dañ def pré hivernage mooy li nga xam ne avant defar canal yi bale dëkk bi nga xam ne par exemple su inondation ñëwee ndox mi day mën a dem nga xam ne du am benn zéro inondation day am au niveau de Diamaguène Sicap Mbao de Tivaouane donc ñu ciy remercier les deux maires yi nga xam ne tamit ñëw nañ ànd ak ñun ci bi Euh, di remercier ñi nga xam ne direction DPG yi nga xam ne tamit accompagné ñu ci wàllu matériel mais surtout nag service d'hygiène service d'hygiène moom dañu def lu rëy te je crois que lii c'est à féliciter commandant John ñu ngi lay gërëm yaag sa équipe parce que li ngeen def tey dafa am solo ngeen déployer seeni i logistique sen personnel ñeu accompagner ñu ñeu ci nga xamne ne caniveau yi nga xamne mom lañ mom lañuy defal actuellement ni ngeen désinfecter ko parce que ñep xam nañ ne instant bi ñu ngi jëm ci hivernage te ndox yi bari nañ ci dëkk bi tata yi te yi bari nañ ci li nga xamne mom mo mëna indi sibiru té ngeen jël seen produit macha allah ñu ci bëss bi kon commandant ñi ngi lay sant yaak sa équipe di la ñaanal suñu borom ñok leen ba ngeen yëg ko en tout cas on est vraiment content macha allah fu may daanale noonu la chef de quartier bi di exi donc dañ koy xaar rek mom mu ñëw kilifa dëkk bi c'est papa Kaay ñu ngi lay nuyu yaa sa équipe yëpp ak euh, ñi ñu fekk ñëpp ak yaa leen yëpp eh, di leen gërëm di sant di leen ñaan yàlla yàlla yàlla dëgëral seen taxawaay te eh, barke liggéey bi. ngeen yàgg fa rek lekk baax nga ànd wér tal vraiment lii ngeen def ñu ngeen ko defal ndax fi fanaanu leen dëkku leen ñu ñëw fi dëkk yoo fanaan kon nag su taxaw jël matuwaay bi mel nii amee leen gërëm ak cant di leen ñaan yàlla gën a jàppale te président de bi yàlla jàppale ko réew mi dox lépp ànd ak jàmm salaam lépp ànd ak sutura njaboot gii ñu leen di gërëm sant baax leen ñaan yàlla da ngeen jëf suñu xol na lii ngeen def lu rëy la lu war na matukaay la nag te it eh, réew yëpp war nañ koo gis ndax wax dëgg nit bu defee lu rëy lu mel nii eh, ñëpp war nañ ko wax ndax lu jafe la Eh, ñëpp jóg yéen ngeen jóg indi yëpp luy rey mbóot yeeg ganaar yo ak ak cetera yëpp ah wax dëgg te yàlla rek tax yàlla na yàlla fay leen ñun day ñun de quartier bi ñu ngi leen di gërëm di sant commune bi lépp ci turu commune bi nag ndax délégué ngeen ko defal commune bi ngeen ko defal délégué ngeen ko defal ku fi def ngeen ko defal kon nag mënuñu am fay waaye yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay leen kontaan nañ commanda yàlla bi nga àndal yëpp yëpp a defal leen jàmm ñu ngi bu baax di fas yéen kóllëre parce que yéen leen jàppale te yàlla rek a tax yéen ngeen si population bi ndax bi moom buñ fi amee rek ñëpp am nañ te ñoom ngeen fi nekkal yéen leen fi nekkal kon ku ci nekk yéen yéen a tax ñu ne ñoom it yéen a tax ñu nekk kon nag ñu jàppalante rek te yàlla tax di dimbalante di suturaalante maa ngi lay gërëm den sant ci turu maire ci turu commune bi ci turu Diagne ci turu sama doom bi Ousmane Diop baa <laughs> suma Ousmane Diop ah. leen gërëm yéen ñëpp sama xol sedd na vraiment yal na yàlla seera sama xol kontaan na yàl yàlla kontaan maa ngi ñëw salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf

moo woote bis bile muy bisu nettoyage nettoiement donc bu ñu nee nettoyage wala nee nettoiement ñu ci génnee service d'hygiène parce que walu prévention et te foo déggee prévention rek service d'hygiène dañ war a jiitu ci kanam donc motax tax bi bii mënuñu ko won wuute motax suñu té way tay ba pare ñu wax né population yi aussi que mu bañé yam tay rek nettoyage 7 chaque jour la wara doon chaque jour chaque jour buñu nous war nañoo set setal mu bis def rek ci population di sensibiliser ñu xamné chaque jour la du bis chaque jour la diko continuer saxal ko Non rek déjà muy feebar euh, parasitaire yi wala maladie infectieuse voilà parce que tey jii boo gisee xale yi ñoom ci mbedd bi ci ci canalisation yi xale yi tey xale xamuñu dara peut-être mag sax mun naa bu fee fooyee ba pare wala bu génnee sax kër mais yi xamuñu

nangoo liggéey waaw gis nga tey ji mënoon nañu ne ah commandant am li muy def ni ñu ñëw fii di ah, naaj bi tàng naaj bi demee noonu mais ñu ngi noonu yenu pompe yi ne ci liggéey bi waar bi parce que yéene liggéeyal population donc di leen sant bu leen gërëm man di gërëm di leen sant voilà am na solo trop gën jamu si Kambaaw commune Tivaouane Diassao ñu ngi jaar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne comme ngeen ko gisee nii rek eh, tey lancement la boo xamante ni nii mi ci président de la république pour nettoyer dëkk bi sa satal ko ak tirage canal yi nga xamante ne ñun moom chaque année président de la république avant mi falu daf ñu fekk depuis mu am canal ba chaque année événement bi bu avant mi taw ñun di euh, tiré canal yi indi fi salte yi ak lépp waaw loolu moom saa su ne gars ji ñu ngi ci ñu xamee ko noonu daal tey daal loolu moo ñu tax population bi ñëpp jënd nañ yàlla nekk ci liggéey daal ñu ngi rafetlu nag population bi seen euh, détermination ak seen taxawaay donte ñëpp génnuñu parce ñu bëri tamit na ñoo xam ne amaguñu boo xamante ne nii dañu war a génn nekk ci nettoyage beeg yooyu mais alhamdulilah sax am na ñu fi nekk tey cere de gerte génn nañ membre génn nañ xam en même temps ni am na ci jeunesse bi ñoo xamante ne nii am nañ coopération génn ñu jàpp ci liggéey bi kon wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant mais di wax jeunesse bi tamit ne dañoo am esprit boobu tey ñëpp bi ñu déggee ne président déplacement bi rek tey ñëpp waroon na ñor askan bi yëpp ñëpp waroon nañoo mën a génn tey képp kuy taxaw liggéey sa gox parce que bëggee xaar état ci lépp sotti esprit bi nga xamante ne ni Rwandais yi dañ ko am waa Rwanda ñun esprit boobu ñun sénégalais war nañ ko mën a am lii dafa war am chaque weer ah weer dafa war a am chaque weer waaw chaque weer dafa war a am waaw mooy loolu quoi CDD moom la mës a am rek waaw taxawaay bi CDD mës a am mooy chaque année dinañ jéem a fexe def benn soixante douze heures boo xamante xam nga jéem a xool nit ñi seen wér-gu-yaram si tool may ay garab armée yi tamit bëgg cimetière jàmm gën chaque année dañuy taxaw volontaire bàyyi set setal bi nga xamante ni clean day lañ koy tuddee boo xamante ne ni dañ koy def jàmm gën moom chaque jour CDD ñu ci action gis nga yàlla sàkk nawet bi tamit bu ñëwee gis nga sàkk dañuy fexee génne suñu machine pompe yi dem ci kër yi nga xamante yi nga ndox jëm ko ci canal yi mu dem CDD moom chaque jour dañ ci action yi nga xamante ni moom la dëkk bi soxla waaye di ko xam ne la ñun loolu daal ne wax dëgg yàlla autorité yi nga xamante ne ñoo taxaw jàpp gars jàppale gars mooy moo xam ñaari communes yi nga xamante ne moom ñoo soxla jàmm muy taw njëkk taw jàmm lañ si am baax dëgg la nag ñu ngi jéem mais nañ def liñ mën parce que lii ñuy def ñu tamit ñoom seen rôle la ñoom ñoo ko waroon def kon tey bu ñu amee collectif bu mel ni nekk jàmm gën di def lii ñoom war nañoo mën a taxaw appuyer gars yi di leen jàppale ci lépp da am solo daal. waaw jeunes yi li ma leen di conseillé mooy dañoo am esprit bu rafet ndax jàmm ga bu ñu rek ñu ne jeunes yi leen rek la ñuy concentré wu làmb tey li may lancé mooy ñi ñuy woowee ay mbër ñu dëkk jàmm ga ñoom esprit bi ñu war am waruñu jàpp ne ñoom sax du lañ leen war di jàppale wala di leen dimbali. ku ci am combat bu a maa ngi woo monsieur le maire maa ngi woo Noreyni maa ngi woo c'est-à-dire nangam sangam mais ñoom pour lan bu ñu wootee lu mel nii ñoom lu ñu génn ñoom ñi ñuy wooyee ay mbër di bëre lu ñu génn ñu ñëw di jàpp ci liggéey bi bu ñuy curé canal yi ñuy ñëw bu ñuy seqatal ñuy génn bu ñuy bay armée li ñuy génn bu ndox mi taayee ñuy génn di dimbale askan wi mais yow bu boo amee combat da ngay jéegu taxaw ne gars yi la may ay millions wala cest à nangam sangam mais tey yow askan wi bu ñu la fi nekkalee dañ koy war a nekkal askan bi loolu mooy dëgg tey lancement bi bi ko président defee képp koo xamante ne mbër nga mu leer na leer da am ay fan si lay topp wala di tey da nga waroon génn ñëw taxaw dugg ci canal yi nettoyé ko vidé ko bale mbedd yi mu set te xam ne ci dëkk bi nga dëkk loolu mooy esprit boo xamante ne esprit bu rafet la man loolu rek laay lancé jeunes yi bu ñu waxee ñu ne jàmm gan ci ay ay lamb rek la ñu mais li ñuy concentré wu ci lamb yi et puis nañ concentré li xam tey dëkk bi ah loolu lañ leen di lancé quoi waaye ñu ngi jégalu nag bu baax ci kàddu yi ji ñu dina pour laal xolu kenn ah. mais dëgg la boo xam ne dañ koy partagé rek ku ci nekk jot wasalaam ñu ngi jégalu